ila kulli damairi rafi jëm ci mboolem damiri rafaaya albaarisati aji feeñ allati ya nga xam ne yom kin dana jàpp ni an tattasila ñu jokku bihaa ci ñoom misaal yi boo ko xoolaate da nga gis ne am na ay fi'il yu ci nekk yoo xam ne dañoo nekk mudaaf am na ci tam yu nekk ajwaf te itam ku ca ne dañ koo indi ca ba mu doonee maadi ak ba mu doonee mudaarihu ak ba mu doonee lamar te ku ca ne itam ca ba mu doonee maadi mbaa mudaarihu mbaa lamar wan nañ la boo jokkee damir yi nga xam ñoo ci mën a jokku nan lay mel loolu nag xool ko ni ñu koy bëgg waxee umbur xoolal itan kon ilal afaali jëm ci fi'al ya al mudahafati duñ ful al mudahafati wa ta'ammal ta nga seetantal shaklan xarfi mask ak araf wa al axiri bi aji mujj min ha ca ñoom wa huwa moom nag alxaafu mooy xaaf ga ak taaliyatu gi aji ñaareel te jit kon nga fekk ne àndahoo naka moom baxdal isnaadi ci gannaaw wér ga saakinun aji sukkoon la fii baadil afxaali ci lenn ci fi'al yi fii baadil afxaali mutaxarrikun te aji maas la fii baadiha ci lenn ci ñoom mu ne njëkk la xool fi'al yi nekk mudaxaf nga xool tam arafa ca mujj te bu dee fii ñuy waxe moom chaq xar na arafa ci mujj mooy xaafuk ñaareel ga ndax waxoon nañ ne boo gisee lu mel ne chaq ñu sàdd ko daa bàyyi ko ci chaqaqa kon xaafuk ñaareel ga moo mujj ci chaqa soo ko xoolee gis ne am na fu ñu ko maase masque ak néeg am na fu ñu ko maase masque gu bokkut ak masque ak nekk ndax bi nga nee shaqaqtu ak shaqaq naa ba ci shaqaq na foofu yëpp xaafu ñaar ga da nga koo maas maas ak nekk waaye nag boo xoolee shaqaa wala shaqoo maasoo xaaf ga daal maas ak nekk ndax shaqaa da ngaa maas xaaf gi maas ak fataa shaqoo nga maas ko maas ak lonk wa annahu ak naka moom laa yaxdusu du xew taxyirun genn soppi fil fiili ci fi'al ba bil isnaadi ci wér ga xindamaa yekkoonu saa yu nekkee alxarfu arafa al axiru aji mujj mutaxarrikan di aji maas fa ita kaana bu nekkee saakinan di aji sukkoon wala yekkoon te du nekk dalika loole illaa xinda isnaadil fiili ndare ci ba ñuy wér fi'al ba ila damairi rafi jëm ci damiri rafa al mutaharrikati ajmas al mutaharrikati waxeete ñoom at taa u mooy taa wanaa ak naa wa noonu niswati ak noonu mbooloo mu jigéen ña su boobaa fukka kon xobbeef maanaam kon teqalees alxarfu araf wa al mudaxaf wa di wuñ ful wa asbaxate mu xëy ma te mujj rek daal xaal fay ni diyaari araf nee na ku mel ne chaq boo ko xoolaatee gis ne su fekkee ne mujjub chaq mi arafa ci mujj dafa maas masque yet mbaa masque lonk ndaa ñoom nga seetlu nag ne dañuy def léeg-léeg bi ñu tuddee masque ñoom dañ ciy jublu rek lu bokkute boog nekk xam nga moom moom day mel nu masque te fekk na bu dee ci nu wolof yi moom sukkoon masque la ndax am masque la waaye ci seen waxin moom léeg-léeg dañuy def sukkoon mu mel ne dug masque ya ci des nag muy yet ca kaw mbaa yet ci suuf mbaa lonk moom ñu tudde ko masque noonu nag moom la jëfandikoo fii saa yoo gisee daal xaafu ñaareel ga lam maas doonul masque ak néeg xanaa nekk masque yet ni ki chaqa wala masque lonk ni ki chaqoo su boobaa nee na da nga gis ne fixal ba amul genn soppi guñ cey soppi mooy yaari xaaf ya lañ leen saddaa woon ba mu mel ne genn ba tey noona la maa gis nga chaqaa kenn teqaliwul yaari xaaf yi shaqoo noonu su fekkee nag xaafam ñaareel ga ci misaal mi dafa maas maas ak ne moom faaw rek nee na ak soppiku dana am loolu mooy faaw nga teqale yaari xaaf yi bay leen a lidd xaam xanaa teqale leen tak-tak bi nag mooy boo jokkee taa taa nag moom yóbbaale na ta ti tumaatum tunna ak bocc jokkee naa ak bocc jokkee nunu mbooloo mu jigéen yooyu nga xam dañoo nekk dalu rafaayu maas yooyu boo ko jokkee ci mu daaxaf faw arafu ñaareel wa daa war a maas maas ka néeg te su boobaa faaw nga teqalikook arafu njëkk wa ñu bañ a àndati léegi boo bëggee wax xar naa faaw nga ne shaqaqtu teqal yaari xaaf yi ko defee xaaf ñaar gën ak moom maas maas kak nekk wala shaqaqta wala shaqaqti wala shaqaqtuma wala shaqaqtum wala shaqaqtunna ba ci shaqaq na sayit noonu lay mel muy doon niswati waaye nag boo nee shaqaa xar na ñoom ñaar ca maadi ba wala shuqaa xar leen yéen ñaar wala shuqoo xar leen wala anti tashuqiina nga xam ne yëpp yu mel noonu nga xam ne arafa mujj maasul masque ak néeg daa masque geneen masque su boobaa du am genn soppi maanaam doo teqale yaari araf yu bokk ya di ko bëggee fii doo teqale yaari xaaf yi wa isa taamalta boo seetantalee al afhaala fi xal ya al jawfaa ya nekk aj wof baxdal isnaadi ci gannaaw wér ga raayta nga gis al xarfa araf wa al axira yi aju mujj min kulli fi'alin ci bépp fi'al saakinan muy aji sukkoon fii ba'dil af'aali ca lenn ca fi'al ya mutaharrikan tey aji maas fii ba'diha ca lenn ca ñoom wa annahu ak naka moom xinda taxarrukihi fa maasam nga laa yuxsafu deefu dog ayu xarfin woowu ci araf min al af'aali ca fi'al ya xindal isnaadi fa wéer ga wa xinda sukkoonihi fa sukkoonam nga nag moom yuxsafu def na asaf al xarfu araf wa al mutawassit way aji digg doom min hu ci moom wa yakkoon dana nekk dalika loolee inda isnaadihi fa wéram nga ila dama ili rafi jëm ci damiri rafaaya al mutaharrikati aji maas al mutaharrikati fi xal bu nekk ajoof bu fàtte ne mooy boo xam ne arafu ci digg ba moo ràgg ni ki xaala wax na arafu ci digg bi moo ràgg xawala moo ci doon cosaan ku mel noonu nag moom nee na boo dee seet bi nga ci jokkee domir yi ci mën a jokk am na ci foo xam ne arafu mujj wa dafa maas maas ak nekk waaye am na ci foo xam ne arafu mujj wa maasul maas ak nekk jamono yoo gisee nag arafu mujj wa maas maas ak nekk xamal ne kon araf wa nekkoon ci digg ba di arafu ràgg wa paaw dañ koy dagg mu dañ ba set wecc loolu nag la koy waral mooy fi xal bi nag aj wof nga jokk ci damir rafaa bu maas te mooy ta ti tuma tum tunna ak naa ak na bi dellu ci mbooloo mu jigéen soo ko seetloo xaala wax na boo jokkee tu day dellu ci xultu te xooltu la woon amoon na waaw boo nee xul naa xool naa la woon amoon na waaw albanaatu xul na xool na la woon saa wecc jokkee daal damir dafa ab maas moom ba la jiit damir ba maas maas kër nekk faaw araf wa nekkoon ci digg ba te ràgg day dañ ba set wecc su fekkee ne nag araf wa mujj ca fixal ba maasul maas kër nekk dafa maas maas kër yet ca kaw ni ki boo nee taqoo laa nii xam nga foofu ca mu daari xuma la waaye gis nga la gi dañ ko mas masket ci kaw bijjee ko alif muy taqoo laani wala masket ci suuf ni ki taqoo lii na xam nga laam nga li nga ko def ndax yàgg nga ci jokk wala boo ko maasee mas ko lonk ni ki taqoo loona yooyu yëpp moom araf wa nekkoon ca digg fi xal bi te nekkan arafu ràgg ba ba tax koo tudd ajoof da nga ko fay bàyyi doo ko dagg gis nga taqoo lii na daggoo waaw ga taqoo laani noonu taquluna noonu boo ñëwoon ci lamar ba it boo nee xool yi gis nga ko dëggoo waaw ga xoolaa dëggoo waaw ga xooloo ba tey dëggoo ko waaye foofu gis rek moom arafu mujj ba mas mas ak nekk moom paw rek da ngay war a dagg araf ba nekkoon ca digg ba ba tax nga wax ne fixal bi ajoof la ñu ñëw nag ci alqawaidu lii moo di takk-takk yi ida usnida nde wéereef na alfixlu fixal ba almudaxafu ba nekk mudaxaf ila damiri rafin jëm ci damiri rafa mutaxarrikin bi ajmaas fukka kon xobeef maanaam kon dindeef idxaamuhu idxaamam ba fexal bu nekk mudaxaf soo jokkee damiri rafa bu maas su boobaa nañ boole woon yaay araf ya muy lidxaam da nga koy teqale ñu teqali ko niki li nga dégg léegi ci shaqaqtu shaqaq naa muy wéy ida sakkana ndem sukkoon na aaxirul fihili mujjug fihal ba al ajoofi bu nekk ajoof xosifa kon daggeef wasatuhoo diggam ba fihal bu nekk ajoof su fekkee mujjug fihal ba dafa maas maas kër néeg faaw arafu nekkoon ci digg ba di arafu ràgg wa day dañ ba sit wecc at tamrin al awwal bayin leeralal anwaaxal afxaali façon yi fihal ya wala nga ne xeeti fihal ya min xaysu sixatu ci foofu xam ne wér gaa wal ilaalu ak ràggal ga fi la ibaaraati ci wax yi al aatiyat yi aji dikk waa ayyante nga ràññeel ad damaira damir ya allati ya nga xam ne ahada sat sos nañu taxyiran ak soppi fiihaa ci ñoom maha dikril asbaabi ànd ak tudd sabab ya wax ya mu lay bëgg a indil dafa bëgg nga seet fexale ca nekk wax seeni façon bu ca wér nga wax ne daa wér bu ca ràgg nga wax ne daa ràgg te it wér ga am na ñetti façon ràgg ga am na juróomi façon bu fekkee ne am na ci foo jokkee damiir mu indi soppi na nga daal di wax soppi ko ga ca xew ak la tax soppi ko am ki jultu wëndeelu naa fil xadiixati ci charane ba fa basurtu dama gis bi shajaratin ci ak garab xasastu ko gësam naa axzaanaha ay caram wa shamimtu dama foon azhaaraha ay tóortóoram dama wëndeelu ca biir sardin ba gis fa ak garab daal di gësam car ya foon tóortóor ya boo seetloo jultu bañ ci jokkee tu am nag soppi ndax dagg nañ waaw go woon ci digg ba joowtu la woon xasastu itam dafa nekkan mubaaxaf ñu daal teqale yaari rasa yi nii ndax jokk bi nga jokk tu chamimte it noonu la mel arrijaalu góor ña yàkkut doona danañu sonn li kas bil xóoti ngir fàggu ab dund wan ñu saaw jigéen ña yàqum na danañu taxaw bi si oon ni manaaci bi ci mbiri kër ya góor ñi ñooy génn fàggu ji ab dund waaye jigéen ñi ñooy toppatoo mbiri kër gi albanaatu xale yi jigéen ya ida shabab na ndem màgg nañu mu addabaati mbir mu ñuñ yar saxid na kon ñu texe waxis na te ñu dund sayidaat mbir mu ñu ay sang waxayru fadilat ngeen ji ngëneel yattasif na boobu danañu melowoo bi xaa ci moom allah yam dudd na mooy ñu bañ a tàllal ayuna xunna ayuna xunna seeni bët ilaamaa jëm ci loo xam ne lay sa fil imkaan yit muy nekk ci jàpp ni añ yanal naxoo ñu am ko dafa wax ne xale yi jigéen ñi boo leen yaree ci biñ dee ndaw kon bés biñ doonee mag dañ dund dund bu neex te tekki te li gën nag ci yara leen ko nag mooy ñu bañ a xool foo xam ne seen bët dafay àgg te mën ñoo dem ba àgg fa maanaam daal ba ñu bëgg mënta am daal yar leen ak tamrin ak taani asni du wéeral fii jumalin ci ay jumla mu fii det ñu am njariñ kulla fi'alin bépp fi'al min al af'ali ci fi'al yi al aatiyati aji dikk ila damirayni jëm ci yaari damir min damir rafi ci damir rafa albaarisati aji feeñ wa isa xaddasa ndem xew na taxyirun genn soppi fadkuruhu tudd ko fi xali mooy sadda sakk na saala songu na radda delloo na xifa fegul lay doon lamar boo defee xafa nag muy fegu na biya jaayal final yi ku ci nekk da ngay ci jokk yaari domiri rafa ci domiri rafa yi fés te nga jàngoon leen final bu ci ne da ngay ci jokk yaari domir ci domir yooyee te bu ci nekk itam nga jàll ba mat jumla mu wax bu daanu te bu fekkee gis nga ca genn soppiku ndax jokk ga nga jokk yaari domir yooyee kon na nga leeral soppiku googee wax la ko waral at tamrin at taalis adxil dugalal xarfan araf jaasiman way aji jasam xalal afxaali ci fixal yi al aatiet yi aji dikk fii jumalin ci ay jumla mu fii dit ñu am njariñ wa bàyyin tega leeral sababu ma sababus la nga xam ne yax dus dana xew fiihaa ci ñoom minal xas fi ci ak asaf in wujjida ndeem fekkeef na ko fixal yi nga xam ne moo di yejoolu dana wëndeelu yasiiru dana dox yaxaafu dana ragal yajiw dana dikk yadoomu dana sax dafa bëgg kenn ku ci ne nga def ca arafu jasam te jàll nag ba mat jumla maanaam ba mu nekk wax bu daanu def nga nga ci def arafu jasam nag bu fekkee waral na amuloo ca dagg nga xam ne bu doon jasam nga du dagg waaye amuloo ca dagg ngir jasam nga na nga leeral loola loolu nag ñoom ñëpp ñoo ci yemoo yi mu tudd fii moom ku ci ne boo ko jasamee araf ràgg woon ci biir day dagg ba set wecc ni ki ya joolu boo ko jasamee day njëkk nekk lam ya jool ñu seet ne àll ji sukkoon gu dund la waaw wala yaa wala alif nag loo ci xam ne maasu dañ koy jàppee sukkoon gu dee buñ tasee noonu faaw da ngay dagg sukkoon ga dee bàyyi ngay dund lamee jool day des lamee jul wandeeluwut yasiiru boo ko jasamee day day njëkk a nekk lam yasiir waaye da nga dëgg yaay ji mu des lam yasiir doxut yaxaafu day njëkk a nekk lam yaxaaf nga dëgg alif ji mu des lam yaxaaf yajiw day njëkk a nekk lam yaji nga dagg yaay ji mu des lam yaji yadoomu day njëkk a nekk lam yadoom nga dagg waaw gi mu des lam yadum at tamrin arrabia haati andil min masadiril afxaali ci masdari fixal yi al aatiyati aji dikk fixla amrin fiilu amar musnidan mbir mu ngay aji wér ko li damiril waahidi jëm ci damiri genn góor waddaxu te nga teg ko fii jumalin ci ay jumla mufiidatin maxa bayaani ma ànd ak leeral la nga xam ne xadasa xew na fii ci moom minal xadati ci asaf fi xale yoo ngay séen mu tàmbalee ci naama dem mat juróom dafa bëgg kenn ku ni nga génne masdaram ba noppi soo génnee masdarama nag nga wëlbati ku tëgg ca lamar lamari genn góor ba nga tëggee lamar nag boo gisee ne ak soppiku am na ca ndax am na lu ñu dagg loo xam ne tëgguk lamar ja moo ko waral na nga leeral lii kat dagg nañ ko ndax li ma ci tëgg lamar soo bëgg génn seeni masdar da ngay wax ne naa ma nelaw na naw man mooy masdaram laa ma yedd na law man mooy masdaram xaama féey na féey ci ndox xaw man ak féey mooy mastaram jaada taw na ba tabe na jaw dan daañu ko ci wax xaada dellu na xaw dan ak dellu kon génne nga mastar yi kenn ku ne léegi nag mu ne tëgg ci lamar te xool ba xam lamar ba tax na am loo dagg ci fexal ba am déet ñoom ñu ne ñooyamoo koo ci tëgg lamar rek faaw arafu woon ci digg ba te cosaan la waaw la woon arafu woon faaw day dagg ba set wecc ndax mujj ba day maas maas ka nekk ndax naama nelaw na yanaamu dana nelaw lamaram mooy nam nelawal nga xam ne arafu ci digg ba rot na laama yedd na nuun yeddal gis nga waaw ga dagg na haama féey na hum hum féeyal ba tey waaw ga dagg na jaade tabe na jut waaw ga dagg na xaadu dellu na xoddu mooy lamaram ba tey waaw ga dagg na التمرين الخامس حول والبتل العبارة وخب الآتية بأجدك إلى أمر الواحدة جمع لمري جن جيجين والإثنين أك نيار والجمع أك جمع بنوحيه عندك نياري فصوم نيه دا wax ne wax be ngay seen dañ ca digal genn góor rek mu bëgg nag nga soppi ko digal ci genn jigéen wëlbatiku digal ci ñaar wëlbatiku digal ca mbooloo te it na nga ko def yaari yoon andi booy digal mbooloo mu góor nu mu mel ak ak booy digal mbooloo mu jigéen nu mu mel wax bi dane surra na nga bégloo waaye doy ka sa yaari waajur bég taaxati ci topp war sun te nga ñoŋal nafsaka sa bopp minal xaari ci gàcce del topp sa yaari waajur foo mën di toll ba seen xol sedd lépp loo xam ne xeetu gàcce la bul nangu mu jege la boo digal benn jigéen ba ngay wax ne surri surri waaliday ki bittaaxati wa soonii saana ñoŋal na soonii mooy lamaram moo kaana nga ne ca koonii ñoo yemoo nafsa ki minal xaari bu dee jenn jigéen loolu la bu dee ñaar nga ne leen surraa waaliday kuma bittaaxati waaliday kuma wa suunaa nafsay kuma minal xaari bu dee mbooloom góor nga ne surroo waalidiikum boo ko dee jamxu jamxu mu sakkar waalidiikum lay doon boo koy bàyyi tës ne moom day daan nekk rek walidaykum bittaaxati wa suunu anfusakum min alxaari bu dee mbooloo mu góor noonu la bu dee mbooloo mu jigéen nga ne usrur na walidaykum na bu fekkee ñoom ñëpp ñoo bokk ñaari waajur wala waalidiykum na bu fekkee bokkuñu ay waajur bittaaxati wa sunna sunna lay doon lamari mbooloo mu jigéen mi nga sàdd noonu gi li ngay waxee rek kun na nekk leen ñoo yemoo wa sunna anfusa kun na min alaari su fekkee dama jël ni ngay diggale ñaar kon bu dee ñaar da ngay wax surraa waalidaykuma man na surraa waalidaykuma man na usrura waalidaykuma bittaaxati wa suuna nafsaykuma min alxaari التمرين السادس بدل نغوتي بالفاحل تي فاحل با الظاهر بي لسم الظاهر والمستتر اك با نيك ضمير مستتر في العبارة تي وحبي الآتية بأجدك jamiha bama il rafi mboolem damir rafa al baarisati aji feeñ xalat tawaali ca tuftaloo xalat tawaali ne wax be ngay seen am na fa faaxil boo xam ne lisimi zahir la nekkul damir moom nag mooy almar uji almar uji ngay seen moom la yi ci des nag moom faaxil ba dafa nekk damir bu làqu daa bëgg nag faaxil boobu nekk li simi zahir nga soppi ko mu nekk domiri rafaa domir yi nga xam ñoo làqu itam ajaada dafa làq xuwa xassa làq xuwa saada làq xuwa xuwa boobu làq moom it da nga koy weccee domir domir bu fés boo xam ne moom dañuy jàkkaarloog moom kon njëkkal la jàng wax bi mooy isa jadda ndeem farlu na almar u camsa wa ajaada te mu rafetal xazza mu tedd wa saada te mu sang nit ki bu farloo saxoo rafetal day mujj mu nekk ku tedd tedd di sangub ñépp kon nag booy topp ndigal lim la wax mën nga ne isa jëdatu suma farloo xam ne kon dindi nga almar u dal fii def damir dafa bu nekk faaxil te fis boole ci nga jàll ne wa ajjattu te ma rafetal xasastu ma tedd wa suttu te ma sang day soppiku kon isa jadattu wa ajattu xasastu wa suttu bu dee góor nga jàkkaar loolu muy isa jadatta wa ajatta xasasta wa sudduta bu dee jigéen ji muy isa jadatti wa ajatti xasasti wa sudduti bu dee ñaar muy isa jadattuma wa ajattuma xasastuma wa sudtuma su doon mbooloom góor muy isa jadattum wa ajattum xasastum wa sudtum su doon mbooloom mu jigéen muy isa jadattunna wa ajattunna xasastunna wa sudtunna nga xool nag at tamrin assaabi def ko إسناد الماضي الناقص إلى ضمائر الرفع البارزة ñettel bi neena mooy alfihlu maadi bu nekk naaqis maanaam alfihlu maadi boo xam ne dafa ràgge ca mujj ga araf ba ci mujj rek moo ràgg boo ci bëggee jokk domiri rafaa bu maas moom lay wax ci leçon bii mu njëkkee nag al amsilatu xasiitu ragal naa rabbi sama boroom man ngaa jàll teg ca xasii naa ragal nanu ak xasiyaa ragal nañ ñoom ñaar xasii na ragal nañ ñoom mbooloo mu jigéen ma xasoo ragal nañu ñoom mbooloo mu góor ma raditu gërëm naa bi nafs yi bii ci sama cër sama xol sama xol sedd na ci cër bi ma am man ngaa jàll teg ci radi naa gërëm nanu radiya gërëm nañ ñoom ñaar radina gërëm nañ ñoom mbooloo mu jigéen ma rado gërëm nañ ñoom mbooloo mu góor ma saruutu yëkkatiku naa daraja bi ji di ci sama farlu ngajaal teg ca saruu naa yëkkatiku nañ daraja saruwaa yëkkatiku nañ daraja ñoom ñaar saruuna yëkkatiku nañ daraja ñoom mbooloo mu jigéen ma saroo yëkkatiku nañ daraja ñoom mbooloo mu góor ma ak naxuutu xellu naa bi tajaarib yi ci samay nattu tajaarib day jamhu tajribatin tajribat nag mooy expérience maanaam yàgg nattu yàgg seetlu ba am xam gu wér ak naxu naa xellu nanu ak naxuwaa xel nañ ñoom ñaar naxoo na xel nañ ñoom mbooloo mu jigéen ma naxoo xel nañ ñoom mbooloo mu góor ma daxawtu woona ak yi sama mbokk ak daxaw naa woonanu ak daxawaa woonañ ñoom ñaar ñi fi nekkut ak daxaw na woonañ ñoom mbooloo mu jigéen ñi fi nekkut ak daxaw woonañu ñoom mbooloo mu góor mi fi nekkut xalawtu kawe naa bi adab yi ci samay teggiin mbaa ci sama xam-xamu adab xalaw naa kawe nanu xalawaa kawe nañ ñoom ñaar xalaw na kawe nañ ñoom mbooloo mu jigéen ma xalaw kawe nañ ñoom mbooloo mu góor ma ak madaytu wéy naa fii tariix yi ci sama yoon maday naa wéy nanu madaya madaya wéy nañ ñoom ñaar maday na wéy nañ ñoom mbooloo mu jigéen ma madaw wéy nañ madaw wéy nañ ñoom mbooloo mu góor ma qadaytu fay naa day ñii sama bor qaday naa fay nanu qadayaa fay na ñoom ñaar ñi fi nekkut qaday na fay nañ ñoom mbooloo mu jigéen ma qadaw fay nañ ñoom mboolum góor ma istadxaytu sàkku naa saahibi sama àndaale sama àndaale maa ngi koy sàkku di ko woo bëgg mu ñëw istadxay naa sàkku nanu istadxayaa sàkku nañ ñoom ñaar istadxay na sàkku nañ ñoom mbooloo mu jigéen mi fi nekkut istadhaw sàkku na ñëw mboolu mu góor mi fi nekkut i'talaytu kawe naa mooy féeti naa kaw mooy war naa rek man nga ne i'talaytu war naa almuhra mol wa i'talay naa war nanu i'talayaa war nañ ñoom ñaar i'talay na war nañ ñoo mbooloo mu jigéen fi nekkut i'talaw war nañ ñoo mbooloo mu góor mu fi nekkut loolu mooy al amsila mu jàll si ci al bahs kullu misaalin bépp misaal min al amsilati ci misaal yi assaabixati aji jiitu yëstal dana làmboo xalaa fi alin ci fixal maadin bi maad naaqisin bi naaqis waxad usnidat te wéereef na al afxaalu fixal ya fiihaa ci ñoom ila taa il faaxili jëm ci taa il faaxil wa naa ak naa wa alifil isnayni ak alif gu ñaar wa noo nit niswati ak noonu mbooloo mu jigéen mboolem misaal yi nga xam ne ñoom nga séen nii te jàng ko ba àggal misaal mu ci ne am na fiilul maadin boo xam ne naaxis la